sant ak ngërëm ñeel na leen ci ànd ak ngeen di ànd ak Thiénaba TV wali say bi ahadun yàpp ri an annasuunahu macha allah organise ko ci dëkk bu baax di kenn biyu Baay Cheikh Ahmad Tidiane yi xam nga nit dina raw nit ci turandoo comme man sëñ Ibrahima Sakk ëllëg ma tuddee Baay Cheikh Ahmad Tidiane yi maam Ibrahima Penda ko meññi ci dëkk Cheikh Ahmad Tidiane Sërif radiyallahu taala muy as xam boppam masha allah am na ko wax léegi daan tool bi mu fi bàyyi yàlla bu mu booy ma ne ko tool bi du booy bàyyi njaga yow bërki démb bi sama soxna dem di siyaara ji rasulillah muy soxna màgga jën bi nga xam ni Maodo Alaaji Abdu moo ma ko may ci yarub sëriñ ma digg saj yàlla nee na keroog nga ma yónnee xaalis am ku ne tool bii mu fi bàyyi yàlla bu mu booy ma ne ko du booy ndax bàyyi na fi li koy sàmm muy xam-xam bay Seex Ahmad Tijaani ñeent bant yu góor ci saayir la ko yàlla jox kenn ku ne ci ñoom bu alquran xëyoon ni mër ñu gontu defar loolu doy na danoo bay jàmme yaay juróomeelu doom bi nag xam nga kenn mënta lim doom yi sax bay sax ma tijaan yi te boole wula ci déedéet jaaduwul sàkkumullah sëñ góora doon sa baay doon sa baay ku gën sëriñ ma dëkke ko daan firi muy baatu rahmaan képp ku doomu aadama ca nga bokk min ngi yaa ngi ci biir booy xool sax ñi weddi yàlla ñoo ñu ko gën a jekk muy àddina bokki julli di bàyyi sax ma tijaan alaaji taala siise yal yàlla leesar leeram ci moom moo ñu bàkkal bàyyi sax ma tijaan yi soog a dem àjjana bi muy lim gaa kilifa yi da boole kilifa gu am njariñ njëriñ li bàyyi seex rek ngeen fi doon wax teg ci ni ga ca gën nag mooy kilifa gu lawet ah. kenn ku na ci ñun lonk woon masha Allah ci kole rek bàyyi seex ma tijaan yi ku ci amoon looy nëbb doon ti góom la booy nëbb wala taab lu mu sori sori boo wëtteeg bàyyi seex ñi ma nga ne ko bàyyi seex xoola sama taab gi fi mu ne te jàmm rekk ci baat bi nu yàlla tànnal ñun jullit te mooy asalaamu aleykum wa taala wa barakaatuhu dolli santaat yàlla ci jotaay bii ñu toog julli ci njool makka alayhi salaatu wassalaam di tëbb ci fay bay képp suñu sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Sërif radiallahu taala an bokki jullit yi sëñ Murtala leen nuyu bu baax di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi maamam sëriñ Assane Seck xalif généralu Tijaanu Canaba nii ko borom xaas waxe borom xaas nag xol bi daa rafet sëñ ma diggee ko wax sa baay kon ñu koy nuyu bu baax di ko siyaar bu baax jox ko wàccuwaay bi ko yàlla jox rafetlu ak teewaayam di ko ñaanal yàlla yàlla gën a guddal fan wi yàlla dolli wér gi yàlla yokk ijaab bi yàlla mottili yéene yi yan na ko yàlla def amin ñëpp koy ñaanal tey taxawaay yi matte na ko yéene ji matte na ko ngëm gi matte na ko kon li des mooy ñaanal ko yàlla mu sottal ko boppam ñu bokk ko fekk ndax bu sottee ñu ñëpp la amal njariñ kon yal na ko yàlla def amin fa tabarakallahu muy kilifa gu baax kilifa gu woyof kilifa gu yaatu dënn di kilifa gu bëgg njabootam yéena leen yépp yiw kon loolu sëñ Moutalla nee na ñu ngi ko ciy sant la yàlla di ñaan yàlla rek yal na yàlla boole mottali lu ñu ñëpp kaddu yi sëñ góora kaddu teraanga la maxtaar waaye kenn ku nekk xam na ne sunu maam toogaay bi day yàgg ci moom te it ay ittee ngi ci kanamam kon lu nu yëkkati kaddu gi nanu ko bokk doyloo te xam ne barkeelu du tuuti ñu ngi nuyu ñëpp sëriñ bi mi ngi nuyu way juru boppam sëriñ Souleymane Seck borom xaas di rafetlu taxawaayam ci njaboot gi kenn ku nekk xam nga digganteem ak njabootu Baay Seex ma Tijaani muy diggante boo xam ni fa tabarakallahu diggante la bu rafet rafet lépp ak cofeel ak mbëggeel ak sàmm mbokk moo ko lal fa tabarakallahu yaakaar naa bu duggee Thiénaba ku ko soxla boo ñëwee ci taatu niim gi fi nga koy fekk mu toog fi lay aña sax mu wuuf ay rakkam nag di waxtaan ak ay rakkam di leen yee ci àddina bu yàqu bii waaye boole kook di leen ñaanal yàlla te it noonu mu koy defeek ñoom moom borom xaas noonu la koy defeek doomi boppam ma man koo seede man mii ci mag ciy doomam seede ko sama digg ak moom yenn saa mu toog ba mu neex ko mu ñëw Canaba Kayoor indaale méewu gileem bu bari toog ak ñun yëkkati teraanga yu bari jox nu daaj ñuy conseiller ñaanal nu bu baax kon kilifa la gu baax man man ki mi na woon daaray kokki yàlla dogal mu ñëwoon kokki fekk nu ca daara ja mu bëgguñu lool bàyyi ñu xel lool yëkkati taraanga yu bari jox nu booba ba léegi sunu digg ak moom cofeel gi day yokk rek yal yàlla guddal fan wi yàlla dolli wér gi yàlla dolli suture bi noonu lan ko toppee nuyu koy bàyyi topp ko nuyu koy maam topp ko nuyu koy rak ak bàjjan jotaay bee xate sëriñ baa ngi nuyu woy juru boppam soxna xadi booy ak soxna ayda mbeen booy ak bàjjanam soxna nooy sekk ci biir kër gi ñu ngi koy nuyu bu baax di leen ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér gi yaram njaboot gi ngeen am ak Baye Cheikh Ahmad Tidiane yi ñu mën koo commencé ci lim ci sëñ Moodu ma ca àll ba ba ci sëñ góora mii di doomi boppam ak Baye Njaga Maxtaar borom yar ak soxna Nogay Mbay seen mag ak Baye Sekk borom xam-xam bi ñoom ñëpp sëriñ baa ngi leen di nuyu mu ngi leen di siyaar jox leen wàccuwaay bi leen yàlla jox waaye di rafetlu seeni taxawaay seen taxawaay ci njaboot ak ni ngeen taxawee ci seen ginnaaw baay ah mooy taxawaay yu rafet moo tax nit ñi ñëw mooy taxawaay bu ànd ak jom ju mat sëkk la seen baay bëggoon ci baax lépp ngeen bëgg fam tegoon tànkam ngeen jël seeni tànk teg ca kenn ku ne xam na ni bis bi ginnaaw ndimbalal yàlla jom yaakaar naa ni mooy wuutu bis bu mel nii waaye ku amul jom ñemewoo bis bu mel nii ah, man nga koo bañ a ñemee woote de waaye bëgg seen baay ak gëm seen baay ak delloo njukkal seen baay ak bëgg a xamal nit ñi kan mooy seen baay jukko yu rafet yi yàlla defoon ci baay Cheikh Ahmad Tidiane nga xam ne kenn kenn mënu koo lim ci bari ku lim rek da ngay lim la nga xam ya ca des nga bàyyi yooyu dajale nit ñi ñu koy xam man koo roy dafa am njariñ kon Baye Cheikh ma Tidiane yi jukko yu tedd yéen yàlla defoon ci moom mu amoon njariñ lool ci famille bi njariñal Baye Cheikh Ahmad Tidiane foo ko takk rek ci réew mi passé na ko itteem ci doomu aadama yi taxawu doomu aadama ba ay aajoom faju foo ko takk ci man-man rek wees na ko ak bëgg doomu aadama yëpp foo ko takk wees na ko ak tabam foo ko takk wees na ko xam-xamam bu rafet ak ci poosam nang yooyu yëpp Baye Cheikh Ahmed Tidiane da cee tabe woon kon yu jukko yu baax yu mel noonu ñu koy xam ci seen way jur wu baax wi njaboot gi toog su ko defee ñu leen koy jàngal ñu war koo roy ci moom loolu daa am solo sëñ góora kon ñu ngi ñaanal Baye Cheikh Ahmed Tidiane yi yal yàlla yokk leeram amiin yal yàlla taas na ci barkeem amiin njabootam gi yal leen yàlla sàmm yal na leen yàlla taxawu yal yàlla suturaal leen ay jàmbaar la de ñun de suñ dëgg ak ñoom la leen ci seen bàyyi digaloon xamal leen ñu ñoo bokk lépp daan ñu ko dénk ñun ñëpp wax dëgg de ñoom luñ ci man dara manqué wu ci lépp luy rafetal diggante bi ñoom ña nga ca de leen war a def ci baax ñu ngi koy def leen war a wax ci baax ñu ngi koy wax leen war a taxawee ci baax ñu ngi koy taxawee kon ñu ngi dellu di leen jaajëfal di leen san di leen gërëm di leen jaajëfal di leen ñaanal yàlla sunu yaay soxna Xadi Booy moom ñëw na démb ànd ak doomam soxna Aminta si la Seck moom it fa tabaarakallahu mu ngi leen di san mu ngi leen di jaajëfal mi ngi leen di ñaanal yàlla rafetlu seen taxawaay ci biir ak ci biti soxna Aminta Sylla it nga xam ne bàyyi seexa ko jël teg ko ci suñuy loxo na ma téyel sarak ngir yàlla ak yonante bi akuk mbokk ak feddali kóllëre diggante mag sama sëriñ sëriñ ma dikka ko sec borom yàlla nee na ak yaakaar moom it looloo taxoon ñu jox nu ko loola taxoon ñu jox nu ko soxna Aminta mi ngi ciy xëy mi ngi ciy gon bokk yi ñu ngi leen koy seedal bu baax di ci dalal seenum xel fa tabarakallahu yem na ci loxo sonn nangu naa góorgóorlu nangu naa joxe teraanga tey seq naa ñëpp jàmm ca dëkk ba bari nañu yow fii fa tabarakallahu ginnaaw yàlla ñu jógee cana ba kayoor yàlla ak teraangay soxna aminta ak taxawaayam fa taxaw amoon a leen fi indi kon loolu yéen bawal bawal yi ñu ngi leen koy seedeel yal yàlla dool noo jàppale yal yàlla taxawu leen sëriñ bi wax na yëg kàddu rek loolu la doon yëkkati ci jotaay bi da ko barkeeloo di leen xamal ne sunu xol sedd na ca na ba kayoor nag man na maa wax ni kër gu nekk am na ku fa jógee ànd ak ñun ñëw ci bis bi kon yaakaar na waa na ba kayoor ñëpp a ñëw fa tabarakallahu ànd ak yéen bis bi góor ñi ñëw na jigéen ñi ñëw nan kenn desul fa tabarakallahu kon maam Assane kontaan nanu yal na yàlla yàggal sa taxawaay yal yàlla dolli wér gi yal yàlla dolli sutura bi nii ngay def bëgg njaboot rek a tax ak dalal xelu njaboot gi ndax kenn ku ne xam ne ni guddi na bu la neexoon nga yebal sëñ maa jooja mu doy sëg te ñépp a koy rafetlu waaye fa sax njaboot xewlee moo xam fii ci canaba la moo xam canaba gosaas moo xam mbuur la moo xam canaba kayoor ak feneen ci taalibe yi loo jàppoon da koy bàyyi dem taxawu njaboot gi ñaana leen yàlla dalal seen xel loolu yàlla na ko yàlla saxal ñu ngi jéggalu ñëpp di leen jéggal sëriñ Alpha Ba ñu ngi lay siyaar bu baax di siyaar alaaji ngañ demba saar porte parole di nuyu duwu duwu béy mii nga xam ne lu baax rek lay def duudu béy macha allah li nga bëgg yaa xam yan na ko yàlla def muslu ci saytaane di wax aouzu billahi min sëriñ Gora ngi wax ñëpp asalaamualeykum. wa rahmatullahi. wa rahmatullahi. wa barakaatuhu. wa barakaatuhu. wa maxfiratuhu. wa maxfiratuhu. ñoo ngi nuyu ñëpp. nee na ñëpp. waaye ñoo ngi jéggalu ñëpp itam. di leen jéggal tamit. waaye ñoo ngi wàññeeku di jéggal ñëpp. ñaan yàlla mu boole ñu waaye ñaan yàlla mi ñu bokk moom ñun ñëpp yàlla yàlla boole jéggal. di leen gën a jéggalu nag ci jotaay bu yàgg. Serigne di nuyu suñu baay bu baax. di nuyu suñu baay bu baax bii. di jël nuyoo bi ma nuyoo léegi. di jël nuyoo bi ma nuyoo woon léegi. teg ko ci loxoom. teg ko ci loxoom. mu tegal ñu ko ci famille maam mu joxal ñu ko mboolem famille mam Ahmadou Ndack bi nga xam ne tey mooy bu nekk waaye ak mboolem famille bu nekk ci dëkk bi te ñëpp di ay taalibe. ak yeneen famille yi nga xam ne dañoo ñëwoon. waaye ak mboolem yeneen famille ñëw ci dëkk bi te ñëpp yaakaar Seexu Thiénaba ngir yàlla. di ñaanal suñu baay bu baax. bii baay Seexu Thiénaba. yan bi nga xam ne moom la ko yàlla yan. baay Serigne Assane yan bii la yàlla yan. ñun njaboot gi yëpp ñu nangul ko sëriñ góore ni ñun sa njaboot gépp nangul la ko ngir yàlla di ngi la ciy ñaanal yàlla yàlla defal la ci ndam yal na yàlla defal la ci ndam hmm. ba nga si réussir boo xam ne xalifa yi fi jaar yal na ci réussir réussir xam ne sa mag yi fi jaar yëpp kenn amu ko ci yal yàlla defal la lu ëpp lam leen defal ndax lu fi def rek ndax lépp loo fi def njaboot gi nga ko defal. ndamal la gi la. ko defal. njaboot gi nga ko defal. bu dee réalisation. dëkk bi bëgg nañ ko. dëkk bi bu dee ay forage. bi bëgg nañ ko. dëkk bu dee ay école. bu dee ay école. dëkk bi bëgg nañ dëkk bi bëgg nañ bu dee ay affectation. bu dee ay affectation. bu dee dimbali ay nit bu dee dimbali ay nit dëkk bi bëgg nañ dëkk bi bëgg nañ ko yàlla nga ci am ndam yàlla na yooyu yëpp nag yàlla nañ ci am ndam yàlla na yàlla jàppale la yàlla na yàlla jàppale la man de maa ngi lay waxal ni bis ni ki tey man de Baye Assane maa ngi lay waatal ci yàlla di la wax ni bis ni ki tey jii lépp loo soxlaati ci man man de lépp loo soxlaati ci man jëlal sa téléphone am jëlal sa kenn jëlal sa téléphone woo ma baa nga woo ma ñëw woo ma ma ñëw woo ma ñëw nga ne ma defal ma naan nga ne ma sëñ defal ma naan bu soobee yàlla bu soobee yàlla su boobaa di xam ni bu boobaa di xam ni am nga doom ju la taxaw nga doom tànk yooyu laa taxaw ci tànk yooyu laa nga dem sama xol dafa fees sëñ góore nee sama xol a fees dama toog yëpp li ma toog yëpp. Baye Cheikh rek laa koy man Baye Cheikh dong laay gis. damaa am ay yéene. damaa am ay yéene. yéene yoo xam ne yéene yoo xam ne. damaa fas yéene takk sama damaa fas yéene takk sama ndig. jàppale ko jàppale Baye Assane mii. ndax lépp lu mu am solo. ndax lépp lu mu am. ci lu baax rek ci lu baax. dëkk bi la ko am sunu ndaama te dama dëkk bi. Baye Assane yàlla nga fi yàgg. Baye Assane Serigne Gora nee na yàlla nga fi yàgg. yàlla yàlla defal la xéwal gu bëri goo xam ne képp ku jaar si njabootu maam Ahmadou Ndaa gi rek xéewal gi ma lay ñaanal nii bàyyi asan sëriñ góor a nee mi ngi lay ñaanal xéewal gii mu lay ñaanal nii yàlla na yàlla defal la ndam loo xam nii bépp xalifa bu fi mos a jaar bu fi mos a jaar la ko commencé ci sa bàyyi maam Omar Talla ba fi nga toog. ba ci yeneen xalifa yi ba ci yeneen yi la wala wut. yàlla nga si am ndaw bu yàlla na yeex waaye yàlla nañ ci am ndam lu kenn musta am. jaay seerul wu jooy barke yonent yàlla Muhammad. yéene nañ la ko yéene nañ la ko. ndax ndam lu baax loo am rek. ndax ndam lu baax loo am. réussiru dëkk bi la réussiru yal na yàlla dolli say yal na yàlla dolli say xéewal yal na yàlla dolli say teraanga yal na yàlla dolli say teraanga yal na yàlla dolli say sutura yal na yàlla dolli sa sutura di jaay Seydina barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafay wax ci alquran yàlla daa wax ci alquran ni man amila man amila saalihan saalihan min zakarin min zakarin aw unsa aw unsa wa huwa wa huwa muminun muminun falanuhyiyannahu falanuhyiyannahu hayatan hayatan tayyibatan tayyibatan walanajziyannahum walanajziyannahum ajrahum ajrahum bi ahsani bi ahsani ma kanu ma kanu ya'maluna ya'maluna daf ni yàlla nee na képp ku def lu baax. képp ku def lu moo xam ngay góor. moo xam ngay moo xam ngay jigéen moo suñu borom. suñu borom nee na. dina la ko fulal. dina la ko fulal. ful ful ful goo xam ni. ful goo xam gu bëri lay doon. ful gu te du yem ci ful googu. te du yàlla nee du ma yem ca ful gën a. dina la ci defal xéewal goo xam ni. dinaa la ca defal kenn xam xéewal gi fa mu kenn xam xéewal gi fa muy te kenn ku nekk. te kenn ku nekk. loolu ngay ñaan yàlla loolu yàlla. yàlla defal la ko. ñu ngi nuyu sëñ Pape Seck moom. ñoo ngi nuyu sëriñ Pape Mouhamadou Mourtada Madické. moom sama rakk la. moom sama rakk la. sama xarit la. sama xarit la. sama doom la. sama dooma. sama goro la. sama goro la. loolu laa waxoon tey si loolu laa waxoon tey ci mbégte. bi bi maar di def annonce bi. bi maar di def annonce bi. dama ni ko. dama ni maar jóg. sëriñ Pape Seck sëriñ Pape Seck Murtada mooy borom gàmm mooy borom gàmm moo tax bi maar dafee annonce moo tax bi maar dafee annonce bi ba noppi bi mu ko déggee bi mu ko ñëw bi muy ñëw ñëpp xam ne ni ñëpp yëg na ni borom gàmm gi ñëw borom gàmm gi ñëw na te gàmm gi gàmmam la ñu ngi lay nuyu bu baax sëriñ Pape Mouhamadou Murtada ñu ngi lay nuyu ñaanal ñoo ngi lay ñaanal yàlla say taxawaay rafet na lool ci kanamu njaboot ci kanamu njaboot bi ñu ngi sant sëñ ñoo ngi sant Baye Souleymane Seck borom xaas. di ko ziyaar bu baax di ko bu baax. di ko ñaanal di ko ñaanal yàlla bu baax. yàlla na ko yàlla roof wér. yàlla na yàlla roof ko wér. na yàlla defal ko maanaam yaram yàlla yàlla wér ak jàmm. sëñ Souley sa yaram wi yàlla na yàlla wéral ko jàmm. bi yàgg na. sa toogaay bi yàgg na lool. dama leen a yërëm sax man yërëm naa la lool. moom bi mu njëkkee dugg si sànq si tànk bi mu njëkkee dugg si ci tànk bi sànq. bi mu ma nuyoo rek bi mu ma nuyoo rek. li ma dal ci Baye Asmi ma dal ci Baye Asmi moo ma dal ci moom wallaahi dafa am lu bëri lu ma yëg. dafa am lu bëri bi ma nuyoo lu ma yëg. lii dara dàqu. ndax lii dara da koo dàqu. woote. woote. say mbokk yëpp sa mbokk yëpp ñëw. canaba canaba gi. famille bi ñëpp ñëw. famille yi ñëpp ñëw. ñun amuñu xaar ma yàlla ak. ñun amuñu xaar ma yàlla ak kenn. ñëpp. ñëpp lañ amal jàmm lañ amal jàmm suñu xol sedd na xol yi sedd ñu ngi nuyu ñëpp ñoo ngi nuyu ñëpp ñoo ngi ziar ñëpp Bayas. kontaan naa ci yow naa ci yow man. kontaan naa ci yow. Bayas kontaan naa ci yow. Bayas nee na yëg naa ko de. xam nga sànq damaa wax ni. dama Baye Serigne Gora nee na damaa wax sànq ni. Bayas barki démb. Bayas barki démb. fee la toog ci buntu kër fee la toog ci buntu kër. daa tegale ñaari fan. daa tegale rek ñaari fan ba heure bu xëyee rek ñëw toog ma di ko ataayaal. dafa njëkk a ñëw. dafa njëkk a ñëw. ñëw toog ñuy waxtaan ñëw toog ñuy waxtaan. ñuy waxtaan sax di di def débat. ñuy waxtaan di def débat ma ak moom. nekk ci ay débat yu yéeme nekk ci débat yu yu yéeme. di waxtaan ba ndeysaan ba ba ba ñu yërëm ko ci. di waxtaan ba mujj gi ñu yërëm ko ci toogaay. ñu yeewi ko mu dem ñu yeewi ko mu dem. te bi mu agsee. bi mu agsee. dañuy ana ataaya ji dañuy ana ma xam ne su ma tegee ataaya foofa. ma xam ne bu ma tegee ataaya foofa. dinaa ko sonal dinaa ko sonal. te booba ci voyage la jógee. te booba ci voyage la jógee. ma jëlle la rek ma jëlle la rek. bàyyi noonu mu dem bi ma xëyee bi ma xëyee ma romb ko ci buntu kër kër gi mu to ma ko damay génn ma ne ko bàyyi aas maa ngi génn de waaye damay ñëw waaye maa ngi ñëwaat léegi su ma ñëwee su ma ñëwee ma ñëw naan si ataaya nga ñëw naan si ataaya avant may agsi avant may agsi ci buntu kër gi laa ko fekk mu taw kilifa waaye kilifa gu mel nii ku ko am wax dëgg yàlla ku ko am da nga koy ñaanal da nga koy ñaanal nag ndax kilifa yu ci bëri ndax nag kilifa yu ci bëri koo ko seeti koo dem di ko seeti maanaam am fa aajo booy booy lijjanti nga am fa aajo booy lijjanti ci moom wala nga nekk ci njàqare soo balaa nga koy boo demee bala nga koo gis ah, mën naa jafe lool nag ah, loolu daluñu ñun waaye loolu nag ñun wàcce na ba alhamdulilahi rabbil alamin daluñu ci suñu kilifa alhamdulilah kon yal na yàgg kon yàlla na yàgg kaddu yi may yëkkati kaddu yi may yëkkati kaddu sëriñ Modou Seck la sunu mag sunu xalifa sunu xalifa baay. nga xam ni tey jii. nga xam ni tey jii. bu fi toogoon bu fi toogoon. man du ma yëkkati genn kàddu. lépp dama koy bàyyi lépp ci loxoom lay ne. xanaa mu jox ma ndigal xanaa mu jox ma ndigal ne ma waxat ma. te moo ma jox ndigal lii may defit ñoo ngi koy ñaanal yàlla. Europe gamu ne ca Italie. yàlla na yàlla delloo si ko ci jàmm. waaye ñoo ngi nuyu mbokk yëpp. ñoo ngi ziyaare ñëpp. sëñ Alpha Ba ñu ngi koy nuyu. Serigne Alpha Ba ñu ngi lay nuyu di la ziyaara bu ñoom chaque jour heure heure buñ tàntee. moom heure bu nu tàntee. nii lay def. nii mu def lay def. da koy ànd ñun. da koy ànd ñun. macha allah ba macha allah. kon jara sant la kon bàyyi al fort ku jara sant la. ku jara ñaanal yàlla. sa taxawaayam ci dëkk bi sa taxawaay ci dëkk na lool rafet yéen yéenay suñuy sëriñ. yéen ñu ngi leen di ñaanal. yàlla yàlla yokk seen i. yàlla na yàlla yokk seen i talaata. yàlla ñu ngi leen di nuyu. seen taxawaay rafetoon na démb de waaye tey la waaye tey la gën a nañ leen de jàppoon nañ leen de waaye nañ leen jàppaat waaye dinañ leen gën a jàppaat ba ngeen xam ne jàpp ba ngeen yëg gën leen leen a jàppaat incha allah bu neexee yàlla sëñ Ngoot Gay sëriñ Ngoot Gay moo xaddam muqaddamu Baye Cheikh Ahmad Tidiane Seck. moom lañ ciy boole. moom lañ ci boole. ndax su ma musaana wax nguur ndax su ma musaana wax nguur. danaa ma bul waxati loolu. Baye Cheikh danaan ma bul waxati nguur. del wax sëñ nguur del wax sëñ nguur. kon sëñ nguur. kon sëñ nguur gay. muqaddam muqaddam. ñu ngi lay nuyu bu baax ñoo ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay ziar bu baax ñoo ngi lay ziar bu baax. yéen ak waa Kër Maguette. yéen ak waa Kër Maguette yi nga ko bokkal yépp. ak famille yi nga xam ni. ak famille yi nga xam ni. dañ leen a boole woon ci ñaanuk Baye Cheikh. dañ leen a boole woon ci ñaanuk Baye Cheikh gii. muy suñu bàjjen Diagne soxna Aminta Seck. ak Serigne Talla Dieng. Baye Talla Dieng. ak El Hadj Dame Mansour. moom mi nga xam ni. moom mi nga xam ni. gàmm gi da ci daan def yu bëri da ciy def teraanga yu bëri. yàlla def ren ji fekk yàlla dogal ren mu fekk ko barzak. ñu am yéene. ñu am yéene. ñaanal ko ci bis ko ci waxuñu ko benn njaboot waxuñu ko lu baax li doon def démb. lu baax li mu doon def démb. loolu rek lañ ko doon fay loola dong lañ xool ba fay ko ko tey. benn njabootam waaye benn njabootam yëgul ni sax ñu ngi koy rendre hommage yëpp numéro téléphone. waaye waxuma ko ci waaye waxuma ko ci kenn ndax li ñuy def yàlla lool loolu mooy lu baax. loolu mooy lu baax. ku lay defal lu baax ku lay defal lu baax. soo demee ba gisatoo boo demee ba gisatoo ko. da koy fay da nga koy waaye bul dem si njaboot waaye bul dem ca njabootam. di leen ko wax. dem ba Dakar di leen ko wax. di leen indil coono di leen indil coono. nañ ko ñaanal rek nañ ko ñaanal rek. yàlla ko yàlla. yàlla na yàlla yokk yërmande ci moom. yaay Seydina Muhammad barke Seydina Muhammad sallallahu ngi nuyu mbooloo mi yëpp. ñoo ngi nuyu mbooloo mi yëpp. ak yaa màggat Fall nuyu Adja Maguette Fall. Adja Maguette Fall. yaa Maguette Fall. ak Serigne Lamine Fall. ak Serigne Lamine Fall. moom mi nga xam ni. ñoom ñi nga xam ni. goro la woon ci kër gi. goro la woon ci kër gi. doomam mi ngi si kër gi. doomam mi ci kër gi. ñoom ñëpp ñu boole leen. ñoom ñëpp ñu boole leen. bisu Baye Cheikh ci bisu Baye Cheikh bi. di leen defal hommage di leen defal hommage. kon loolu ku ko xool. loolu ku ko xool. di nga xam ne lu jaadu di nga xam ni lu jaadu la. ak Baye Mamour Cissé. Baye Mamour Cissé. mi nga xam ni. nga xam ni. ci ci yendu ci yendu di fa fanaan di fa fanaan kon ku mel noonu kon ku noonu euh, bis mel nii bis mel nii bu ñëwee bu ñëwee war nañ leen see bàyyi war nañ leen caa bàyyi xel dolli leen ñaan rawatina alaaji rawatina nag alxaaji Jóob sopp na bi mi nga xam su gàmmu musaana ñëw su gàmmu musaana ñëw daawul yendal daawul yendal daawul fanaan ñu ngi koy ñaanal ñoo ngi koy ñaanal yàlla bu baax di nuyu sañ ngañ saar di nuyu alaaji ngañ demba saar ñëwul waaye ñëwul waaye andi na fi teraanga gu bëri andi na fi teraanga yu bëri ñu ngi koy ñaanal yàlla ñoo ngi koy ñaanal yàlla di nuyu waa kër Cerno Alsan Sall di nuyu waa kër Cerno Alsan Sall yëpp di leen ziar bu baax yàgg na toogaay bi yàgg na ñu bàyyi sëñ ba ñu bàyyi Baye As ñu bàyyi Baye As mu def ñaan mu defal ñu ñaan yeewi mbooloo mi mbooloo mi ñu dem ba beneen yoon dem ba beneen yoon ngi nuyu suñu xarit sëriñ Gora nee nag maa ngi beral nuyoo sama xarit Alaaji Mayoro Faye Mayoro Faye Mayoro Faye sëriñ bi nee na mi ngi lay beral nuyoo année bu jot nii lay def at mu jot sëriñ bi nee nii ngay def léegi nag dafa damay taxaw foofu waaye sëriñ Gora nee nag damay taxaw fii bayaas dafa am ñett yoo xam ne bayaas dafa am ñett yoo xam ni ñett ñoo xam ne ñett ñoo xam ni dama leen a bëgg a sant dama leen bëgg a sant balaa gàmm gàmm gi balaa balaa balaa nit ñee kàddu yi di ko ñaanal leen muy sëñ Njambe Gueye muy Moussa Njambe Gueye mii ak sëñ Pambou alaaji Pap Abdoulaye Mboum mee ak sëñ Adama ak alxaaji Adama Seck mu bàyyi sëriñ Talla sa doom ak sëñ Daawda Cuun nee na sama xa waaw taxaw nañ taxawaay boo xam ne si. nee na taxaw nañ ci sa gàmm gi taxawaay boo xam ni. dafa jéggi dayoo taxawaay bi daa jéggi man damay toog ba si yàgg. man damay toog ba yàgg. dama leen di yërëm sax. damay yërëm ñii sax. démb heure bi fekk na leen. fii ci buntu kër gi démb heure bii ci buntu kër gi la leen fekk. de matin de matin lañ fi jugee. di waxtaan rek di waxtaan rek. ngir bis bi baax. kon nag yéen it coono ba ngeen doon daj. doon ko ñaan yàlla. wax dëgg yàlla la ngeen doon ñaan lépp di ko dajit yàlla defal na leen ko paas sëriñ bi kon doy sëriñ baa ngi lay nuyu bu baax ñoo ngi lay sant bu baax ñoo ngi lay jaajëfal bu baax sa taxawaay rafet na ñoo ngi sant sëñ Omar si ñoo ngi sant alaaji Omar si dafay indi teraanga yu bari ku mel noonu ku mel noonu la defalee teraanga la defalee teraanga ah, sant ko si biir wax dëgg yàlla sant ko ñépp dégg ko yëg ne sant nga ko dafa am solo dafa am solo. ndax la in sakartum. ndax nag la in sakartum. la azidannakum la azidannakum. wala in kafartum wala in kafartum. lu ci topp. yàlla nee na inna azabi la sadidun inna azabi la sadidun googu. yàlla sëriñ góore ni inna azabi la sadidun googu. du mbugal de. du mbugal nag. dani su ma leen defalee xéewal. yàlla dani su ma leen defalee xéewal. ngeen lànk bañ maa sant. ngeen lànk bañ maa sant. ma nangu la ma leen joxoon. ma nangu la ma leen joxoon. ku yàlla may alal ju bari. ku yàlla may alal ju bari. jékki-jékki nangu ko. jékki-jékki nangu ko. ci mbugal mu métti ngay ne. ci mbugal mu métti nga ne. inna asaabi la sadiidun. inna asaabi la sadiidun jooju. mooy loolu. mooy loolu nag. ñu ngi sant suñu mag. soxna ñoo ngi sant suñu mag. soxna lu ngay se. ak soxna Maguette Gueye. soxna Maguette Gueye. ak yaa nooy sekk ak yaa ay dëbooy ak yaa ay dëbooy ak soxna yi ci kër ak leen soxna yi ci kër soxna Faat Sekk ak ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ñoo ngi leen di sant ñu ngi sant Baye Njaga waaye maa ngi sant nag Baye Njaga mii ñii sax jarul ma leen di sant ñii moom jarul sax ma leen di sant maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na yàlla fayal ñu leen tabaarakallaahu sëriñ Babacar Ndiaye eh, moom it lépp loo xam ne ay moom it lépp lu ngeen gis fii muy ay tib ci baas bi moo ñu ko jox. boole ceeg yéene ju rëy boole ceeg yéene ju bañ demee di ko yëgal gàmm keroog bi ñu demee di ko yëgal gàmm bi. dafa dafa jël eh, téléphone am. dafa jël téléphone rek. am am kum doon woo. am kum doon woo. mu leer ma ni da da maanaam programme tey bi tib yi daa am kum ko jox. mu leer ma ni programme tey bi tib yi daa am kum ko jox. mu ani la programme. mu ani jël tib jël tib ya. Ah. jox ñu ko jox ñu ko. te fayuñu ci dara te dara. teraanga gu mel noonu teraanga ju nag. ku ko defal war ko nga ni jaajëf. mboolem ñi fi indi teraanga nag bari mënuñoo tudd ñëpp. de. waaye képp ku indi teraanga ci bisu Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck ak koo doon. yàlla nga ko balaa ñoo ngi lay ñaanal yàlla balaa déwén yàlla na def na ci dara. barke Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waa Thiénaba TV. waa Thiénaba TV. ak ak Samsu TV. ak sa Thiénaba 24. nangu naa man du waxoon. man du ma waxantu. tolluwuma ci boobu niveau boobu. tolluwuma ci it. tolluwuma ci. ma toll ak sama fii ma toll ak sama borom. du ma waxantu. nee ma waxantu. lu ma wax rek. lépp lu ma wax. intéressé na. nee intéressé na. dëgg la ci man. li nga wax. nee sëñ góor li nga wax. dégg naa ko. jàppal naa la ko. waaye sëñ góor a baax na. danaa la fay de. ah danaa la fay de. man Assane. nee man sëriñ Assane. ñi yàlla dimbali. ñi yàlla dimbali. ci laa bokk ci laa bokk. ñi yàlla dimbali. ñi yàlla dimbali. man nii ci laa bokk. man ci laa bokk. may sant sama borom. maa ngi sant sama borom. bàkkuwuma. bàkkuwuma. sibuwuma. sibuwuma. man yàlla dimbali na ma. man yàlla dimbali na ma. boole na ma ci ñi mu dimbali. boole ci ñi dimbali. man. nee man. Xasan Seck. Xasan man caatu wàlliyu la. man caatu wàlliyu maa ngi bëgg a am juróom-ñett fukki at. ngi bëgg a am juróom-ñett fukki at. yàlla la. nee na ku gëstu. turu yàlla la. ba mel ni professeur. ba mel ni professeur. mën naa cee defar. mën naa cee defar. yàlla tere. yàlla mën naa cee yàq. mën naa cee yàq. Hmm. waaye sëriñ góor lii nga wax dox nga ko dox nga ko wax nga ko wax nga ko def ko toog ci diggu mbooloo toog mbooloo wax ko nangul naa la ko danaa la jàppale nee man yéen rekk laa am nee man yéen dong laa am si njaboot yéen la ma yàlla dénk yéen rekk laa am li ma gën a bañ ci àddina li ma gën a bañ ci àddina mooy ñàkk leen yàlla bu ma leen ñàkk atul awma beneen mébét awma beneen mébét awma yeneen xalaat mukk ci këru àddina damaa bëgg a liggéey. nee damaa bëgg a liggéey. damaa bëgg a maam Amary Ndack. allah bi xawatilaa. waaye li ma yëg. waaye li ma yëg. ci sama loxo. sama loxo. mu tiim cana ba. cana ba. su ko yàlla wàccee. su yàlla wàccee. coono cana ba jeex. coono tiim cana ba nii. nee li may gis mu tiim cana ba. ci sama loxo. ci sama loxo. bu wàccee. su wàccee. coono cana ba jeex. coono ba jeex. man damaa bëgg a liggéeyal Amari Ndag. nee damaa bëgg a liggéeyal maam Amari Ndag. sëñ Souley mii. nee sëriñ Souleymane mi. maa wax démb ni ma. wax na ma démb ni. million millions. 32 millions. yi ngay def ci xabru góor gu mag. yi ngay def ci xabru góor gu mag. su la neexoon. la neexoon. nga tabaxale ko say doom. tabaxal ko say doom. te jox leen ko. te jox leen ko. booba mi ngi may mu ngi may sant. di ma félicité. di ma ñaanal. 32 millions yooyu. nee 32 millions yooyu. mat na mat na. damaa fab ñaareelu mocce bi. damaa fab ñaareelu mocce bi. jox ko sama doom yi. jox ko sama doom sëriñ maa joojo. ni ko nan ci dépassu. ni ko nan ci dépassu. li ci des. li ci des. nu bàyyil ko taalibe yi. bàyyil ko taalibe yi. jox naa leen ñaar fukki millions. jox naa leen ñaar fukki ak ñaar ak ñaar. ba départ nañu liggéey. te nee bokkul. ak li nga xam ne ak li nga xam ne moom laa dugal ci compte Amary. moom laa dugal ci compte maam Amary Ndack. compte boobu dama ko ubbi. compte boobu dama ko ibbi. def ma ko ci sama tur. nekkul sama tur. dama ko def ci ci entrepreneur yi nga xam ni. nee dama ko bàyyi ak entrepreneur yi nga xam ni. ñooy liggéey liggéey bi. ñooy liggéey liggéey bi. ñoom ñoo am droit. ñoo am droit. dem ca compte ba. dem ca compte ba. jël ca. jël ca. dikk liggéey. jox ma reçu jox ma reçu. ni ma jël nañ ca nangam. ni ma jël nañu nàngam compte Amary Ndaak boobu. nee compte maam Amary boobu. def naa ca di million def naa ca 10 millions. sama xaalis sama xaalisu bopp. boobu. nee compte boobu. ku mu doon nga ñëw yor canaba compte boobu ci sa loxo la nekk nee li tiim canaba nee su wàccee coono canaba jeex toog naa ak président de la république toog naa ak président de la république di ko jox dossier canaba rek di ko jox soxlay canaba ko jox ma koy jox ba yàgg mu ni professeur Dia. ba yàgg mu ni professeur Dia. li nga may jox. li may jox. mu ngi a bari. mu nga bëgg a bari. ma ni ko président. ko président. lii nu lay jox. lii nu lay jox. nëgë ni waroon naa fekk. waroon naa fekk. nu weesu ko ak yow. nu ko ak yow. ba nekk ci leneen. mu ni ma wax nga dëgg. kenn ba dafa detteelu. kenn ba dafa detteelu. ci diggante alaaji Mamadou. ci diggante alaaji Mamadou Dia. ak sëriñ Ibrahima ak sëriñ Ibrahima Seck. ak Senghor ak Senghor. ñu waroo ñu waroo. keroog la cana ba detteelu keroog la cana ba detteelu. doxatul doxatul. xalifa bu dikkit xalifa bu dikkit. loolu nga fi fekk loolu nga fi fekk. moo tax cana ba moo tax cana ba. bi may jox document yi président. bi may jox document yi président. mu xaw a bari mu xaw a bari. waaye dani ma. waaye daf ma ni. yow mii yow mii. sëriñ Xasan loo wax mu ngi ci yow ma ne ko président jàng ma daf la yow sa aqulaahi taxalaa ngay wax baa moo groupe yow jàng nga ma xam nga ma nee cana ba dafa detteelu woon te déparagul lépp lu dikk catastrophe am ca. catastrophe am ca. Sibson ba continué. Sibson ba continué. loolu moo réglante Thiénaba. loolu moo réglante Thiénaba. waaye man. damaa bëgg a liggéey. damaa bëgg a liggéey. li tiim Thiénaba. su wàccee. nee su wàccee. ci sama loxo. ci sama loxo. coono Thiénaba jeex. ne dina àgg ci logement social bi. ndax maag yéen noo ko bokk. ndax maag yéen a ko bokk. askan wee ko moom. askan wee ko moom. man logement social bi. logement social bi. bi ñu koy joxe. bi ñu koy joxe. fekkuma fi fekkuma fi. sëñ seex lañ ko jébbal. sëñ seex lañ ko jébbal. mu dox ci ay jéego. mu dox ay jéego. daal di pare. pare. jàll jàll. jàll. toog. place ba ko jox. place ba ñu ko jox. bële bële. sëñ Abdourahim moo leen ko jox. sëñ Abdourahim moo leen ko jox. te loolu lépp. loolu yëpp. bi muy am bi am. fekkuma fi maa ngi ci ligne secondaire. maa ngi ci ligne kon mbir moomu. moom mbir moomu. moomu ma ko. askan wi ñoo moom loolu. waaye li ma gën a jaaxal. waaye li ma gën a jaaxal. lépp lu ma toog ak ministre de l'intérieur. ma toog ak ministre de l'intérieur. ba mu nangul ma ko. ba mu nangu ko. ma toog ak président. toog ak président. ba mu nangul ma mu nangul ma ko. bu duggee région bi. nee su duggee région bi. gàllankoor gàllankoor. région bi. nee région bi. jàppale wuñu ma. ma. Ah? région bi jàppale wuñu ma. nee région bi jàppale ma. ne gouverneur de la région. ne gouverneur de amul lenn ci àddina. amul lenn ci àddina. lu may yendoo. lu may yendoo. mbaama du ko fanaan mbaama fanaanoo ko. te xamu du ko xam. mukk mukk. ministre de l'intérieur. ministre de l'intérieur. nangul na ma. nangul na ma. logement bi. président nangu na ko. muy gàllankoor ba nëgën. muy gàllankoor ba nëgën. damaa bëgg. damaa bëgg. nañu liggéey logement sociaux bi. nañu liggéey logement bi. mbaa ñu jël seeni bagage te dem. mbaa ñu jël seeni bagage te dem. logement sociaux. logement sociaux. du diine ji du diine ji. du tariixa bi du lislaam bi. du lislaam bi du amari ndaag du morset du ma dikke roqoy géey te du Ibra Penda réseaux sociaux bi réseaux su fi nekkul su fi nekkul du wàññi diina ji dara du wàññi diina ji dara diina ji moom diina ji moom départ na ci sama loxo départ na sama loxo te dootul réglé te dootul réglé mukk mukk diina ji moom ne diina na mu ngi dox mu ngi dox normal normal ci sama ñaari at yi sama ñaari at yi te dootul réglé te nag dootul dellu ginnaaw ne Ousmane Cissé daal nee na daal yàqul ci diine ji dara. nee du këru. du këru gan. du këru gan la rek. ah suñ Suley mi ñàkk na kër su lay ñàkk nga këri gan néegu gan. Ah? suñ Suley mi ñàkkul néegu gan. déedéet déedéet. ñëpp am néegi ñëpp am nañu néegi gan. bu ñu ko defoon ba àggal itam. bu ñu ko defoon ba mu àggit. ñoom lañ fay dalal. ñoom lañ fay dalal. fekk leen fa fekk leen fa. di leen teral. Taala Jaañ kero ban toogee. Taala Jaañ kero ban toogee. ma ne ko Taala. ma ne ko Taala. ma ne ko logement social bi teg naa ko ci. logement social teg naa ko ci loxo. keroog la ko mujj tudd. keroog la ko mujj tudd. ba fii ma toog ba fii may wax ak yow. indilu ko ma benn résultat. nee Taala Jaañ indilu ma benn résultat. kon logement sociaux bi. kon logement bi. département bi. département bi. ñoo ko bloqué. ñoo ko bloqué. bu ñu yeboo defar bu ñu defar bu ñu yeboo ba. nee bu ñu yeboo defar bu ñu yeboo ba. bu ñu defaree. bu ñu defaree. diine ji day dox. diine ji day dox. bu ñu ko defarul. bu ñu ko defarul. diine ji moom diine ji moom day dox. te ñun diine ji lan am. waaye poids nee na poids ak position ak xilaafa aw lumb du ko dox aw lumb du ko dox aw lumb aw lumb nee du régler dara aw nee aw lumb du régler tus du régler diine du régler politique du régler dara aw lumb defarul tus waaye damaa bëggoon réew mi. nee maa ngi wax ni réew mi. ci bii mu toll. point bii mu toll. nañu dellu wax ak mag ñi. nañu wax ak mag ñi. te déglu leen. te déglu mag ñi. te luñ leen wax ñu def. te luñ leen wax ñu def ko. loolu rek la dese. dellu leen ci mag ñi. dellu leen ci mag ñi. ngeen wax ak ñoom. ngeen wax ak ñoom. te bañ leen a wor. te bañ leen a wor. luñ leen wax. lu ñu leen wax. ngeen topp lañu wax. bi ñuy waxtaan bëkk démb. bi ñuy waxtaan bëkk démb. Abdoulaye Makhtar jóob Abdoulaye Makhtar Diop. dégg naa mu wax kaddu yoo xam ne. dégg naa mu wax kaddu xam ne. defar na diine. defar na diine. defar na ak bokk. defar bokk. na politique. defar na politique. mag ñooñu. mag ñooñu. nañu leen laaj. nañu leen laaj. ñu wax ñu wax. te lañ leen wax. te lañ leen wax. nañ ko def nañ ko def. loolu laa gis. leen ci mag ñi. nee dellu leen ci mag ñi. te bañ leen a war. te bañ leen a war. lañu wax lañu wax nan ci jaar lii ma gis baaxul de lii ma gis baaxul lii ma gis ne lii ma gis duma ci wax lu sori du ma ci wax lu sori waaye doxul de waaye doxul ne doxul nañu wax ak mag ñi ne maa ngi wax réew mi nañu wax ak mag ñi ñi fi nekkoon ak Senghor. ñi fi nekkoon ak Senghor. nekkoon fekk Abbas Gueye. nekkoon fekk Abbas Gueye. nekkoon fekk Abdou Diouf. nekkoon fekk Abdou Diouf. mag ñooñu. mag ñooñu. jeexuñu fi. jeexuñu fi. nañ fekk ci néeg yi. nañ leen fekk ci néeg yi. laaj leen. laaj leen. lañu wax. lañu wax. nu dox ca loola. loolu laa gis. nee looloo ci des. Sëriñ waxoon naa la sa ëtt ni la yow xolu wàll yu nga yor mën naa koo giñ waaye nee na sëñ Pape Seck mu tudda jërëjëf Seck ne yow mënu maa wax ci yow lu ëpp lii sëñ su lay wax sëñ Pape Seck da baax yow da ngaa yiw yow da ngaa yaru ne dama koy tooñ di ut xuloo ne mu sëgg rek ne aka ut ak Talla Gueye ne sëñ góor maa ngi leen di wax ngeen gën a góorgóorlu ne sëñ góor sa njuum te bareegul ne gisaguma sa esek ndax gis naa li nga ma jox waaye man ku ma lebal ma fay la waaye ku ma dóor ma fay sëñ góor a nee na nee bu ma fayu naay muñ nee na sa fayu bay as xajul ci kenn nee nee sëñ góor loolu lépp olof la rek nee sëñ Suley boo dendeeg man boo dendeeg man ma ruux gaynde booy dend man rek wax ma ko léegi ma dem ruux gaynde nee na yéen sama njaboot gi su ngeen dendee ak man nee sama fit day dëgër waaye su ngeen ma soree nee maa ngi wax ni góor ngeen jërë ngeen jëf këru wilaaya dana dund dana dund ci jàng alxuraan ne këru wilaaya goo gis alxuraan moo ko suuxat reen yi mën a jebbi ne la ca topp ab xalifa bu xam àddina xalifa bu xam àddina day suuxat wilaaya ba kër ga tàkk jëppit ne dama bëgg yéen ñépp ngeen jàppale ma ne dama bëgg liggéeyal maam Amary Ndak liggéeyal maam naa ko ci ngombali wiñaar képp moo ci des ne dama waxoon goneeg canaba. goneeg canaba. gu yor kurus. gu yor kurus. bopp ba sëq. bopp ba sëq. mu sol dongri. mu sol dongri. nga xool kanam nga set wicc. nga xool kanam gi set wicc. bàyyi ba noppi na ca bu yàgg. bàyyi ba noppi bu yàgg. ci jox ko mahrifatu billaahi. ci jox ko mahrifatu billaahi. sëti Amari Ndaag. sëti maam Amari Ndaag. benn sët. benn sët. bu ngàbbul ab dog. bu ngàbbul ab dog. di liggéeyal yàlla. di liggéeyal yàlla. ne amu ci. boo bëggee dimbali sa doom. ne soo bëggee dimbali sa doom. fi mu nekk nii tey maanaam ni ma nekk xalifa. nii ma nekk ab xalifa. bu fekkoon te ne fu waxee ñaari baat. bu doon saay ma waxee ñaari baat. joxoñ maa joojo mii. sëñ maa joojo. mii nii. léegi mbooloo mi topp. léegi mbooloo mi topp ko. waaw su ma ko joxee mbooloo mi ba. waaw su ma ko joxee mbooloo mi ba pare. dee génn àddina. dee génn àddina. moom ndax dina attan maqaamam kër gi. moom ndax attan maqaama kër gi. wóor loolu wóorul. su ma nee leen sama doom. su ma nee sama doom. ñëpp màbb daanu ci kawam. ñëpp màbb daanu ci kawam. ma génn àddina wan ko ginnaaw. ma génn àddina wan ko ginnaaw. maqaamam kër gi. kër gi. tege ci kawam. tege ci kawam. ndax dina ko attan. est-ce que dina ko attan. yàlla képp xam. boo bëggee dimbili sa doom. boo bëggee dimbali sa doom. da nga koy jur. da nga koy jur. yar ko. yar ko. fa diinee defaree. fa diinee defaree. ba mu ñibbisi. ba mu ñibbisi. nga yar ko. nga yar ko. tarbiye ko. tarbiye ko. jox ko turu yàlla. jox ko turu yàlla. gako gako ca. ba mu togg ko ba mu ñor. mu togg ko ba mu ñor. nga génn woon ko ginnaaw. nga génn woon ko ginnaaw. day daagu ndaagal jigéen. day daagu ndaagal jigéen. waaw nee na day daagu rek ci ngelaw lu feex. waaw nee na nee ñëpp di ñëw. ma waxaat ma daan wax. ma wax li ma doon wax. man Assane. man sëñ Assane. ba ma juddoo. baa juddoo. cinquante cinq ah mille neuf et un. mille cent soixante laa jëkk a ngëb kurus. laa jëkk a kurus. di liggéey di liggéey. ba fii ma toog. ba fii ma toog. musuma fande ab dog. fande liggéey sama ab dog. wala su ma ko fandee. mbaa su ma ko fandee. bu subaa ca yoor-yoor. suba ca yoor-yoor. dinaa ko danaa ko fay. man yëkkee ko waaw man yëkkee ko baa juddoo ba tey nee baa juddoo ba tey mosuma liggéey saab dog mosuma liggéey saab dog ba pare ba pare naan yàlla naan yàlla jox ma mbooloo jox ma mbooloo billahi mosuma ko nee mosuma koo ñaan yàlla baa juddoo ba tey. baa juddoo ba léegi. masuma liggéey sama kurus. musuma liggéey ci kurus. ba àggal ba naan sama borom. naan sama borom. jox ma xaalis jox ma xaalis. ne masuma ko def. musuma laaj yàlla mbooloo ne musuma laaj yàlla mbooloo. musuma benn yoon mën naa sama borom may ma xaalis. musuma sama borom may ma xaalis. Ah? ne yàlla ji may liggéey mooy ñëw indaale ko moo ko indi ba mu doy waaye guddi yi ma toll waaye guddi yi ma toll lépp lu ma soxla lépp lu ma soxla ak la ma soxlawul ak lu ma soxlawul nit ñaa ngi ma koy nit ñaa ngi ma koy yët ba mu doy ba mu doy kuy liggéey kuy liggéey bul bàyyi xel xaalis. bul bàyyi xel xaalis. turu yàlla. turu yàlla. bi ko yàlla di wàcce. bi ko yàlla di wàcce. mbirum maqaama ak wilaaya. mbirum maqaama ak wilaaya. moo ko tax a jóg moo ko tax a jóg. waaye poñu xiitum àdduna waaye poñu xiitum àdduna. diguñu la ko ci. nee na diguñu ci. loo ci am loo ci am. barke turu yàlla la ko jox barke turu yàlla la ko jox. na lu mag ñi bind. am na lu mag ñi bind. na tudde ko kimiyaawu kimiyaawu saxaada. jiiñ nañ ko lu ne. jiiñ lañ ko lu ne. tur wu nekk jiiñ nañ ko. tur wu ne jiiñ ko ko. nekk na it fu ne. nekk na fu ne. waaye su la ko yàlla joxee. waaye su la ko yàlla joxee. ba nga di ko liggéey. nga koy liggéey. xëyee ko xëyee ko. xëyee ko. reere ko xëyee ko. lépp loo bëgg. lépp loo bëgg. dana tegu sa loxo. boo ñaanee soo ñaanee yàlla dina la jox yàlla jox la boo soo laajul yàlla dina yàlla jox la kon liggéeyal rek kon yow liggéeyal rek sàbbaal sa borom sàbbaalal sa mu la ko ko neexee mu teg ko fu mu ko neexee hmm. nee na développé ak alxuraan. nee na développé canaba ci alxuraan. alxuraan tàkk. alxuraan tàkk. at mu jot. at mu jot. gone yi di mokkal. gone yi di tari. di tari. gone yu jigéen ñi. gone yu jigéen ñi. gone goo fi takk tey. gone goo fi tey. am kaang la. am kaang la. billaahi. billaahi. lépp. lépp. mi ngi amee ci maqamam si. mu ngi amee ci maqamam Baye Cheikh Ahmad Tidiane. Ah, moom alxuraan mooy ak jagleem mooy jagleem ci lay wax ci lay làkk ci lay lépp ci lay bégal njaboot gi ci lay bégale àddina xam naa looloo tax saa borom yàlla jox ko cër bi xilaafaam ni mu développé alxuraan ci can ba benn xalifa def benn xalifa mus ko def. ca sama baay ba ci baay Cheikh. ba ci baay Cheikh. benn xalifa mus koo def. ci moom la ko yàlla jaarale. moom alxuraan lay wax. mooy ay ay tooñam. ci lay lakk. ci lay lépp. jamono boo toogee si moom. mu jàng benn aaya. tënk bu ca jógee. dana la ko limal. kenn ku ci ne. kenn ku ci ne. bi ngay jaamu yàlla. bi ngay jaamu yàlla. sa maqsad fa nga jublu. fa nga jublu. sa pas-pas sa yitte sa yitte. la yàlla dimbali. fala la yàlla dimbali. waaye. na ko. nee na. daf ma ni sabaay. ma ko han. mu ni ma. Euh, seex dama bëgg nga mokkal alxuraan dama bëgg daal di jël mbindam daal di jël mbindam bind bind ba lem téere ba ba lem téere ba dagg kaalaam dagg kaala ga ñaw ca téere ñaw cab téere jox baay seex jox baay seex waaye sunu famille bii waaye sunu famille bii ci gën a dégg alxuraan sëñ seex a ci gën a dégg alxuraan te it xolu wàllu la yor. te it xolu wàllu yi yor. boo defee ni mere na la. boo dee ni bàyyi sax mere na la. boo ko jubee boo koy jub rek. mu ree mu daal di ree. ree loola ree loola. jox la trente mille jox la trente mille. yaa ngi gàmm nag de. Ah, dindi sa mer ba mu set wicc. nee na dindi sa mer ba mu set wicc. mu may la juróom benn junni. mu may la juróom nga jël sa gasoil. nga jël sa gasoil. bu ceelu saa boo def see. boo lag see boo def see. noonu lay mel noonu lay melaat. loolu dund fur loolu dund fur. maa waxoon maa waxoon sëñ Moodu ni ko. nee dama ne woon sëñ Moodu. mokkal nga alxuraan. mokkal nga alxuraan. tukki nga ba sa xel ñëw na. tukki nga ba sa xel ñëw. noonu sax yaanu raw. noonu sax yaanu raw. sa maqaamam baay. sa maqaamam baay. gardeel ko sa bopp. gardeel ko nag sa bopp. téye ko téye ko. te bu ko jox kenn. te bu ko jox kenn. gardeel sa maqamam bàyyi. gardeel sa maqamam la ma ko waxoon. laa ko waxoon. def na ko ba yus ko. def na ko ba yus ko. yéen a ngi. yéen a ngi. kenn seenu leen fenn. xuloowu leen ak kenn. mbiccoowu leen ak kenn. nee dara amul. addiyee Baye Cheikh laa lay jox. nee na addiyee Baye Cheikh Tidiane. téel ma ko. léegi maa ngi ñaan. waa sëñ Gora mu ni. na ngeen ñëw joxal ko maam Cheikh Baye As addiyee Baye si Ahmad Tiyaan bàyyi ko rek àggaleel ko yéeneem bàyyi ko mu àggale yéeneem bàyyi ko mu àggale yéeneem rek dimbali ko mu àggale yéeneem rek ah waaw. juróom-benn junni Baye Cheikh daan joxe. waaw moom la sëñ Gora yéene. nee na sëñ Gora dafa am lu Baye Cheikh daan jox Baye As. nee na loolu la bëgg a yéene nee na ko ci ñëpp jàppale. addiyee Baye Cheikh. sañ góor nee na addi yi ñëw nee na ana soppee Baye Cheikh yi nee na soppee Baye Cheikh yi nanu ñëw waaw ah. ah, jooju jëlal jooju njàmm géy sëñ Souleymane nee na waaye na ñëw rek ndax nee na mu ngi leen di jàmbat ak banque bëgg Baye Ass faj ko sëñ Souley nee na banque gi mu leen doon jàmbatal la bëgg bu fi jógee yéen ñëpp bànk jeex